ci gouvernance bu Diourbel biñ fi amal CRD ngir waajal màggal Serigne Abdoul Khadir Mbacké édition 2019 bi waxtaanee nañ forage yi nga xam ne dañoo paan ci dëkk bu sell bi di Touba te mën a indi gàllankoor ci ndox mi ci diirub màggal gi. loole ginnaaw waxtaan wi jur gouverneur bu région bu Diourbel ànd ak kilifa yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi bokk na ci préfet bu Mbacké su préfet bu Ndaam ay kilifa yi nga xam ne dañoo bokk ci Maaw Rahmati ba ci Touba ca kanam. ñu ànd ndemmeeku mboole forage yi nga xam ne dañoo nekk ci dëkk bii di Touba te am panne ginnaaw bi nag ci lañ nemmeeku ne forage yi nga xam ne ñoo nekkee ci Baxdaat ak Rahmatul Ahad bi nekk ci université bu Touba bi dafa laaj ñu changer pompe yi nga xam ne ñoo fa nekkoon ci noonee la daayira Touba ca kanam nooru daaree ni génne xaalis ca saasa daal di jënd ñaari pompe yu yees ngir ñu installé ko ci yooyu la forage ngir ndox mën a dellusiwaat jëf ji nag jur ak mbégte ci gouverneur bu région bu Diourbel ànd ak yeneen i kilifa ngir ñu ñëw visiter siège daayira Touba ca kanam ginnaaw bi nag bég na lool ci jëf ji. ñu gën a gën a kontaan loo mooy li ñu bokk te moom ko. Hmm. te ñoom ñii ñu jiite ko. Hmm. ñu ñëw nag boole ñu ci. Hmm. tax ñu indi pompe yi Touba ca kanam dara tax koo jóg li ko tax a jóg mooy Touba. lépp loo xam ne ci dëkk bi la nekk te soxla ndimbal bu ci Touba ca kanam mënee jàpp dana ci jàpp incha allah. di wax ne am bu baax. Euh, tey jii ànd ak euh, gouverneur mu ànd ak adjoint bi yëpp yu département wu Mbacké ak ñuy def visite fii ci Touba jëmale ko ci euh, yi dëkk bi jëm ci ndox euh, ngir waajale ko màggal gi mel ne doxoon nañ wër ay forage yu bari yoo xam ne amoon na ay njàmbat yu ci am ngir mën a xool taxawaay ci biir loolu nag ci la sunu mbokk yi di tubaa ci kanam euh, am jëf yu am solo yu njàgg def waaye ñu def ko tey jëmee ko ci tubaa ci ngir màggal gi euh, mu waral tey sunu jataay sunu taxawaay bi pour réceptionner ay euh, pompe yoo xam ne yu ay forage manqué woon ñu joxanu ko loolu nag duñu man lu rafetlu ko ci ñaari anam mooy en tant que coordonnateur euh, du euh, du grand magal de Touba dañ koy rafetlu ndax lépp loo xam ne jafe-jafe la jëm ci dëkk bi euh, ci jamonoy magal daf nuy laal euh, te loolu benn bu ci gën a mag la woon ci jafe-jafe yi muy ndox mu mel ne eggugoon ci màggal gi waaye manees na wax ne tubaa ci kanam yàlla euh, dimbalee na leen ñoom euh, seen taxawaay wér ca leer ci mbir moomu eggugoon ci màggal gi nag ba xam lan la euh, lan la ñuy am waaye ci waajtaay wi xam nañ ni pompe mënut a ñàkk ndax mooy doxal forage manqué woon nañ ko war ko wuti faneen état bi def na li mu man ñëw nañ en appoint dimbali nu ñu am ko loolu defe naa euh, jëf mënu ko gën a rafet mënu ko gën a mënu ko gën a euh, am njariñ ci waxtu yi waaye nag Touba ci kanam wax dëgg loolu mooy seen mooy seen yitte moo taxoon ñu taxaw loolu moo leen tax mbooloom taalibe bi muy dajee di joxe seenu ñaq ngir jëm yàlla ak sëriñ bi jëme ko ci dëkk bi ngir soqali dëkk bi yittey dëkk bi ak ñuñ dëkk bi loolu rek moo taxoon kuréel gi taxaw mel na nag dynamique boobu ñu ngi ci ñu ngi ci dox ba léegi ah ci it euh, doxin wu rafet ndax leen lu ci ne dañ ko jaar fa mu war a jaar waxtaanee ko ñu ko war a waxtaanee ak juboo am ci ñu jëfe ko nañ ko war a jëfe ci kanamu ñëpp ñëpp di taw tey réception bii ñu def nii te mooy la ci ci kanamu gouverneur mi nga xam ne mooy kilifa région bi kon loolu mel na ni lu am solo la wax ju gàtt rek ñu xam ne daal comité bi am na ci mbégte. gërëm gërëm waa Touba ca kanam. ci euh, liggéey bi ñuy liggéey ci Touba ci turu chef de l'État ak gouvernement bi yëpp dama leen di gërëm remercier leen moo tax ma sol sama dàll ñëw ba fii ci yéen yéeg visiter leen ndaxte tam loolu bokk ci kóllëre ku la ragal sa gannaaw nga mën a ragal sa biir yéen di góor góorlu nee lu ñu soxla ngeen jàpp ci ñun euh, ñu dénk dëkk bi kon boo ku mel noonu jaadu na sax rafet na nga ñëw ba fa mu fekk euh, baax fa mu toog nga fekk fa visiter ko remercier ko wan ko ne loo ma yëg man yëg naa loolu lu ko ëpp lii ngeen ñu defal tam gis nañ ko ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wax ne euh, rafetlu ñu leen ñi ngeen def li ngeen defal waa Touba yeneen koy def ngir waato Touba waaye koy defal réew mi yëpp ndax fii réew mi yëpp ñoo fi am yitte réew mi yëpp ñoo fi am soxla kon boog defal ngeen ko gouvernement bi nga xam ne moom laa taxawal fii pompe yi ngeen def nag bu mën a jàppale Euh, Touba pour màggal gi poñ bi ci ëpp doole muy ndox parce que tam euh, wax naa ko léegi mënuñu jéem màggal ak ay forage yu paan euh, jàpp ngeen ci ndax jënd ngeen ñaari pompe yu bees bëgg a teg suñu loxo comme ni effort génnee beneen pompe bu bees yéen génn ngeen yeneen ñaari pompe tekk suñu loxo ba tey mën naa wax ne kon boo leen ko defee vingt-neuf forages yéen dina dox te boobaa mën nañ am yaakaar xëñ na problème du néew du ñàkk waaye dina wàññeeku kon daal maa ngi leen di gërëm ci turu gouvernement bi di leen gërëm ci service yi nga xam ne ñëpp ànd na ak ñoom tey ci liggéey bi ngeen di liggéey ci Touba di wax parce que xam nañu yéen itam yéen a ngi jàppale dëkk bi te yéen a ngi jàppale at mi gouvernement bi. bi ñu installé pompe yi nga xam ne ñoom ñoo paanoon ci yooyu le forage. nekkee Baxdaat ñi nga xam ne ñoo di waa daayira Touba ca kanam ànd nañ def délégation ngir dem nemmeeku installation yooyu le ñëwee ci forage bi nga xam ne moo nekkee ci Baxdaat sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Abdou Khadr mi nga xam ne moo jiite comité d'organisation màggal sëriñ Abdou Khadr Mbacke gi moo leen recevoir ànd kooki kilifa bokk na ci chef de village ba di sëriñ fàllu Diop. ci bërëb bi la ñoom ñëpp yëkkati nañ fi ay kàddu dëggaat lool ci jëf ji nga xam ne daayira Touba ci kanam jëfaat nañ ko waaye di taxaw temm ci mbooleem soxla yoo xam ne dëkk bu sell bi di Touba am nañ ko. tey fii ci forage bi ci diggante Tindodi. ak Baxdaad dañ ko doon dafa paanoon fan yii te forage bi doon forage boo xam ne moo lëkkale Baxdaad ak Tindóode Gede yooyu yëpp dañuy am ndox ak Ndar Xaaxam yooyu yëpp moo leen di jox ndox tax na ba bi nga xamee ne paan na sonn nañ lool lool euh, xam nañ euh, pompe bi daal moom diggante bi li muy gàtt gàtt sonn nañ ci waaye bañ ko pompe bañ ko monté daaw ba ren manqué wut bii ñu ko monté bi mu yàqoo ak léegi nag metti na lool waaye ñu ngi sant di gërëm suñ kilifa yi nga xam ne ñoo ñu taxaw ba lépp loo xam ne lii soxla nañ ko ñu taxaw ci. waa Touba ci kanam dañoo wax ne maanaam waa Baxdaad dañoo wax ne. li leen defal dafa rëy lool ci ñoom ci seen bët. ndax nag ni daaw rek jox nañu fi 80 tiwo yoo xamante ni ma jox ko Baye baay Touba mi te loolu waa Touba ci kanam ñoo ko def dañoo wax ne dëkku dëkkub Sëñ Abdou Khadir bi kat waruñu ko boole ci lu ñuy lépp lu ñuy def war nañ ko caa jiital ba li muy xat-xat màggal gi jege teewut indi nañ ko loolu nag moo tax ñu ne ma faw mënoo ñàkk a jël kaddu nga santal nu mbooloo mi mi nag cant gi na ngeen xam ne daal Touba waa waa Baxdaad seenu cant am na tàmbali waaye amul yamukaay ndax euh, euh, fi leen fekk ci aw aw tiis wax na am na ku ma wax léegi ne ma am na euh, soxna soo xamante ni barki démb ordonnance bu cher la la la indi te booba rootaan mee ko waral léegi nag su yàlla dogalee tey dërëm yi ñu leen di dajaleel ñu ñu ko dajale ngeen dugal ko foo xamante ni nit ñëpp teg nañ ci seen bët loolu ak sant la sant gi moom sant rek mun a weesu sant ñu gën a jàpp ci Touba ca kanam ndax jigéen ñi bi fi ndox ñàkkee lu na nañ ko lu na dañ nañ ko ci mbirum ndox mi am nañ mbootaayu jigéen yoo xam ne sax taxu ñoo bëri loo sax xam nga ay dëkk sancaan lañ waaye terewul ñu ngi góorgóorlu di def seen i fukk ak seeni i kii di ko dagg ay bon di ko di ko ci dugal waaye suñ sañoon nag ñu am suñu bon yi bopp bokk ci mbir mi ndax mbir mi mooy defar dëkk bi su dëkk bi da naatee rek yëpp dana baax te jigéen ah daanaka liñ naan jigéen moo yor réew mm-hmm. góor ci la de waaye jigéen ñi tamit jàmbaar lañ waaw léegi nag na ngeen ñu ñaanal suñ mbootaay gi gën a am passif gën a baax gën a dox ñu jàppale jàppale ñu jëm ca kanam Touba ca kanam Touba ca kanam ñaanal leen ñu Touba ca kanam ñu ngi sàkku ñaan ci yéen Touba ca kanam wax na tey jii rek wax naa sëñ Mountakha tey suba dem naa fa ba gis ko wax ko nag pomp bi ñaari pompe yi waa Touba ca kanam joxe benn bi ñëw na ba installé ko tey jii benn bi ñu koy xaar suñu waxee nag toujours ba tudd dañuy toujours daf ñuy daf ñuy day incité pour ñu liggéey ak yéen yi la ko jiitu it tey ji moo tax ma xëyee wax ko da wax ko ne ko benn bi mu des benn bi waaye ñu julli mu rafetlu ko lool ci turu Serigne Cheikh Mbacke mi nga xam ne mooy jëriñ Cheikh Abdou Khadir di ki nga xam ne mooy yërëf barab bi ñu nekk di leen nuyu di nuyu mbooloo mbooloo mi nga àndal ci Touba ci kanam mm, di jox yoo xam ne ñu ngi ko jëlee ci sunu kilifa Serigne seex ak Serigne Moustapha ak mboolem seeni rakk muy kàddu yi cant ak kàddu yi ngërëm ndax ni ko waxe mm, bi ñuy ginnaaw bi nga xam ne danoo génnoon waaye bi ma ñibbisee loolu loolaa fi njëkk a fekk ñu taxawu ma ci naan ma baax daal di sonn nan ndaxum root ndax mu amatul amatum ba bëccëg jaxale ca lool moo tax bu ñu demee ci CRD ba loolu lañ gën a taxaw gënoon caa taxaw ndax waxu màggal waaye dëkk bi rek wax dëgg yàlla dëkk bi day bëkk bu Sëñ Abdou Khadir sos fonkoon ko lool bëggoon dëkk bi lool moo tax bu dëkk bi sonnee jaaxle rek jabar gépp dañuy sonn jaaxle moo tax ñu taxawante man foofa nag lañ yëgee ne sax yéenañ ci doxi jéego ah, Abaa Moussa mi wax na ko foofa ci CRD ba ak préfet xam na ne yéen waa Touba ci kanam ñu ngi ci doon yaakaar nañ ne balaa màggal ga dana sotti waaye boobu itam xamuñ so xamuñu woon ne suñu yëre gaawee jàppoon nañ ne fi màggal gi dana man a am rek leen jàpp moo tax dama xëyee suba tan lan ma téléphoné ñoom ñii waa bi xamal ma ne ndox mi xelwaat na surtout arkaan ñu ngi sant bu baax kon nag loolu Serigne Abib Serigne Cheikh nee na mi ngi ci mi ngi la ciy sant yow ci kanam waaye mi ngi sant Touba kanam gépp ndax ndox moom mooy li nga xam ne kenn mënu koo dund ci amoo ko jaxal naa mel may kulli say ayin luy dund lu ne ci ndox ngay dunde ab jullit itam munta jullitam munta sell ci amul ndox ak nas annasaafatu minal imaani aw nisful imaan hmm. kon nag seen balaa nit ak njullitam mat day am ndox kon nag yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy dimbale ban mën a dund dindi dimbale ñu ban mën a jaamu yàlla kon ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm bu baax ci jëf ji ngeen di jëf ngir yàlla ak jëmmi Sëñ Tuubaa ndax jëf ji bu fekkoon ne leneen du ngir yàlla ak jëmmi bi kon daanu ko yëg ñu ñi hmm. démb wala wakki démb sama hmm. tey soo yëg ne forage bi noppi ne te ñoom ñu ñoom ñu ko liggéey itam teelaa ji soog a jox ko ak ñoom ñu xamal ne ñoo ko def kon ñoom li ñu doon def danoo xam ne seen yëfa ndax ñoo ñoom ñoo yem ci Serigne Abdou Khadir ñoo ñoo ñoom ñoo yem ci dëkk bi lépp loo xam ne gis nañ ko ñu war koo def ngir jëmee Serigne Touba dañ cey nekk rek ngir xam ne Serigne Touba mi nga xam ne moom la ñu jëfoon mi ngi leen di gis ca mooy fayee kon nag loolu moo seen jëf ji tegtale na loolu kon nag ñu ngi leen di gërëm bu baax ci turu Serigne Cheikh di leen tërëm bu baax ci turu njaboot gépp ci xam ne nii rek la baax nii rek mooy liggéey bi ndax moom loolu ñu ko waxaan rek kuy liggéeyal ci kuy liggéeyal nit ñi ci sëriñ bi li ngay jëf bu ko dee ñëpp dee gis mu leer naññi seen bët yi mu leer naññi dañ ci gën di rek te li li liggéey moom ñëpp a ngi koy gis te wedd nag loolu sëriñ bi laa wax ne ku gumba moo moom lay wax mi ngi nii wax yoo gis moom jëru ko wax kon nag seeni i jëf neen leer na ñi ngi koy gis bu baax ñu ngi leen di sant bu baax tam nag xanaa di gën a soññi bokk yeeg taalibe bi yëpp ñu gën a taxaw ci liggéey bi mel nii ndax lii ñëpp ko am yéene waaye doonul lu kenn yi def cam bu ko bu mbooloo mi àndee ci benn liggéey ku ne dañuy def sa ñaq lu mu tuuti lii da ngeen ko mën di jëf te bu jë yàlla fay ku ci ne fii ne ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci ci seen seen mbooloo mi yëpp day mel ne ku ci ne yaa jënd pompe def ko noonu la yàlla fayee mbooloo mi lii liggéey day woyof waaye bu yàlla fay nag. kuy ku ne day mel ne yaa jëf sa xaalis nga jënd sa pomp kon nag ñu ngi ciy bi yëpp lu waaye man di ko def ci liggéey bi ndax liggéey la boo xam ne leer na ci bopp nit ñi te ñu ngi koy gis bu baax a baax. lii ñu def itam lenn la ci lii ñu yéenee defal Sëñ Tuubaa ci dëkk bi fii ñu ko def itam barab la boo xam ne baax bu ko ëpp yaakaar ci defal sëñ Tuubaa amut ndax ki fi nekkoon ku ne xam na ne li mu a def mooy teg tànkam siraatal mustaqim sëñ Abdou Khadir moom jaamu yàlla rek la xamoon mës def lenn lu wuteeg sëñ Tuubaa bëggug sëñ Tuubaa mës nekk ci lenn lu wuteeg sunna Yonent bi sallallahu wasallam kon kooku ku koy liggéeyal waa ngaa rafet njort sam xel mën naa ba ñuy jug dara tax noo jug ñu bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa ci dëkk bi te am nañ gëm-gëm am pas-pas am yaqin liñ bëgg man naa am xam nañ ne man naa am keroog bi ko sëriñ Abib muy xalaatee muy deux millions muy kenn ku ne joxe ñaar téeméer buñ ko dajalee boobu lañ xam ne ba mu génnee ci gémmiñam rek lañ xam ne lu mën a nekk la ñu yëngu nag fas yéene taxaw yëngu ci jëmmal ko buñ ne woon mënta nekk lii du mën a am tey dañoo gëm ne mën naa am ñu dox jëm ci te gëm nañ ne fañ bëgg mu àgg yi dana àgg kon fas nañu yéene ànd ak yéen lii ñuy def itam luñ def bëgg ñëpp ñi ko àndal jot ci du ngistal du wane suñ bopp du naw suñ jëf taxut ñu koy def waaye dafa tolloog yëfi mbooloo la ñuy dajale yëfi mbooloo nag ku koy dajale woo nit ñi ne leen dama leen di laaj ngi lii ngi defal leen ko fii foo ko def wa nga leen ko woon bañ teg seen lool rek moo waral daje bi waaye bu doon loolu du jar daje ndax li sëñ si di wax yàlla rek tax ndax def nañ ko bu accident ji la koy doog a yëg sëñ Cheikh it jàpp naa ne yëggu ko ca tool yam nekk kon sëñ Tuubaa rek tax ñu koy def waaye nag feeñal gi niñ ko àndal ñu xam ne lii ñuy def seen alal dañ leen doon laaj ngir jëmmi sëñ Tuubaa defal nañ leen ko fii te jàpp naa ne buñ ko gisee dana xam ne am dugg na fa leen neex wajalilaahi maskani maskani Tuubaa